booy jàng shuhara ci diwaanu annaabixa xasidaam bu njëkk ñu koy tuddee mu àllaqa nii la tàmbalee yaa daara mayyata yow kërug mayyata ga bil xal yaay ci tundoo ba sanadi topp beñ ba mu ne nag wax yu mel noonu wàcc ko fële yooyu bul waxat lu ni mel yét kër kër googu mu taxaw di woo bul ko ci rey dara nekku fa laa yul yan naka bu mu la soxlaal mukk di mënun ay gent indrum ta ndem sàkku nga alhuda jub wala xaraa it du caageenu jonga maya kal xislaani mbir yi ñu mel ne ay kéwél bil jara di ceen ndéenéer ga dana andi fii nag ay daaneel yu bari yu bari yoo xam ne amoon na ca waxi naa joxe ja kal xislaani bil jara di jooju am na fu mu ko daaneele woon mu ne boo bëggee lu baax daal bëgg a jub ba taxee tey ak ëllëg weesaleel sa yitte taaxu ci gent di ko jooya ka wax yu mel noonu ka fàtt di ko jongomaa ka naa jongoma jàng mel ne kéwél ak nangam ak nangam yooyu daal teg ko fee maasa tufiidu ko ana lan la lay jëriñ attalaalun ay gent tusaa ilu haa yu da nga leen di laaj wa nu yu ak lobat ga kal xaw bi mel ne mbalkama bil madloomati ci suuf sañu tooñ bil madloomati aljaladi sa eji dëgër mboolem xab boobu ñëwoon na ca waxi naa bi xaja mu ne fu ay soppe nekkoon dëkkoon fa muy ay gent jotoon faa def ay lobat lobat mooy li ñuy gas wërale ko xayma bi ndax bañ mu wale bañ néeg yi wale lobat lañ koy wax mu ne loolee naaju xa doon wax taxaw di jooy ay gent ak xool la fa des ci jeexit mel ni xeet lobat yeeg yooyu loolu daal amul la benn njëriñ lu jëmale sa xalaat fala tuutil bul jekki di guddalit was fa daarin melal ak kër laa xaraar gog dit benn saxukaay bi xaa muy nekk ci moom ax naa alag na xale xaa ci moom ëllësi la nga xam ne ax naa alagoon na xalaa lubatin ci tan bu ñuy wax lubat lubat dañ na am tan la woon moo xam daa gudd fan waaye mujj dee rek gudd fan moom yàgg yàgg dee rek bu fi jekki daal di yàq sa waxtu ju amul benn njëriñ di melal kër goo xam ne ña fa nekkoon bañ fa toxoo yàgg na lool ni àdduna baaxoo rek nga xam ne lu fi yàgg ràpp kër googee mel noonee nga xam ne ña fa nekkoon toxu nañ bu yàgg mu ràpp ràpp ba daanaka mënatoo koo xàmmee daal bul jekki di ko jooye ka wax na meloon faxat di bàyyil xam mislisaa walis kem lii idi ngir lanti faaxa deetug jariñu bi yi muy nekk ci moom wax fi jéem a la saafara alfu aada xol ba bi ma dexil xaa igir rachadi ci tagg aji làq ji ak jub kooku nag as sayidi mooy sang ba as sanadi kadi wéerukaay ibni sayidi kay doomi sang ba as sanadi kadi wéerukaay ibni sayidi kay doomi sang ba as sanadi ibni sayidi sanadi at taaxiril xaladi kay aji laab xol ibnit taaxiril xaladi kay doomi aji laab ja xol ibnit taaxiril xaladi ibnit taaxiril xaladi te ax ni maa ngi jublu alxadima liggéeykatu yonante bi ëllësi bi nga xam ne xàllat wàcc na makkaana tuxoo darajaam minal kiraami ci way tedd ña makkaana ruuxi barabub ruux min jasadin ci yaram nee na wax yu mel nii naa joxe doon wax teg ko fee amul benn njëriñ jéemale jéemale say wax ci tagg sëriñ bi nga xam ne yàllaa ko may lépp luy jub ak jubal ak gindikoo gindee ak jëm ci yàlla jëmale ca muy sang boo xam ne day ku baax kuñ mën a wéeru ci moom te ay cosaanam yépp loo leen topp topp meloon noonu xaada ca raw rek di ko set wecc ab xol dara lu yàlla bëggut nekku ca te it ay cosaanam da ca raw rek waaye noonu lañ meloon muy liggéeykatu yonante bi nga xamee ne ni mel ci biir ñu baax ñi mi ngi mel ne rek ni ruu mel ci yaram waaw loolu rek mooy gàttal bi jéem a tagg kooku daal te bàyyi nag fàttali ko ay këri démb ak këri maam ak yi cosaan man mooy ka nga xam ne lëxoo ñel na ko xalamun xalima lëxoo gog ñel na ko sarifun ak sab sarifal xaawi kem sabuk siga ba bil masadi ca buum ga fi imtidaahi nabi ci tagg yonante bi taaha te mooy taaha ba tey lëxoo sarifun sari fal qaawi bil masadi noonu la ko naa jox andee woon te ne ki ma lay wax mooy ki nga xamee ne xalimaam fu mu toll mi ngi sab di sëpp ci daaj yi sab di bind te lépp tagg yonante bi rek la ni nga xam ne moom la ab poli mooy ab siga mooy poli di sabe ci buumuk goj ba mooy buum ka nga xam ne moom la ñuy yoor ca teen ba laxoo ñeel na ko sarifun ak sab sarifal xaaw yi kem sabuk ak ab siga siga mooy poli yi rocc teen njëkk yi min nañ ko bil masadi ci buum ko muy goj ba zaaka kookee al mbakki yu mooy kojug mbàkki ka ëllësi ëllësi ka nga xam ne yu duxaa def na ko wooye bi ahmada ci ahmad man ka nga xamee ne abuuf baayam najulu xabibillahi mooy doomi xabibullah duuna dadin ci lu dul kaf ñu nekk muy wax daal waa mbàkki la ñu koy tuddee ahmadu muy doomi xabibullah maanaam xabibullahi nekk maamam daaka kookee al mbakki yu mooy ko jug mbàkki ka ëllësi ka nga xam ne xaaja laq na alxulaa kawe ya wala xoote ñeel na ko fadlu nganeel xalal naas ci nit ñi fil àdduna ca ka gën a jege wa fil buxudi ak ci way sori ya ñun daañu def itam wa fil baxadi bu dee wa fil buxudi nag demee ne kon jam xu baax yi din nee na mooy waaye mbàkke yi nga xamee ne yàllaa ko teg ci kaw li kaw gënal ko ci kaw nit ñi moo xam ña ko jege la moo xam ña ko sori la wala araatu duma gis faadilan jenn aji gën fi naas ci nit ñi yushbihuhu mu koy nuru wa ma uxaashi te duma settee min al aqwaami ci nit ña min ahadin kenn gisuma kenn daal ku ko nuru ci mbaaxam gi te duma settee naa illaa ndare nangam naa bi xam dafa settee woon illaa suleymaana waaye mu ne moom du ci settante ak karim kaatiif tedd bi ci moom min waxidin ci kenn kenn ku aji wéet fii manaaqi bi ci ay ngëneelam fii nax ji ahmada ci yoonu ahmad lam yanqus wàññiwut walam yesit te dolliwut ne waa ju baax ngoog joo xam ne amul moroom li ko yàlla may ci yoonu yonante bi muy ci diine lislaam amul kenn ku ni mel yokkul dara wàññiwul dara aw rek ca digg yoon wa taraaxu danga ko gis yusrihu muy gaawantu naxwal amri ci wàllu digal mujj taxidan mbir muy aji farlu kat tayri mel ne njanaaw ya tan joo danañu daw mi ne fi boobu ca jiñuk taw ba dil baradi kay boroom yóor naa joxe dafa daanle woon loolu mu ne sëñ bi da ngay gis muy gaawantu jëm ci ndigalul yàlla farlu lool mel na njanaaw yooyu nga xam ne ñoo gis asamaan si xiin taw bi mel day bëgg a suub ñu bëgg gaaw na àgg ca tàgg ya balaa taw bee suub nañuy gaawe xataa xawaa ba mu làq maa la nga xam ne xawaa làq na ko min dil badaa exi bàyyi ko ci boroom kiimtaan yi te kooku yàlla man yàlla ma nga xam ne awlaahu méngale na ko fadlan ganeel bila xaddin ci lu limite wala xaddadin du ceegeenu ak lim kenn mënu ko wañee dana farlu gam farlu ci ndigal ci la ko yàlla maye loo xam ne kenn xamul num toll mënees koo waññi mënees koo takk xoo moom alwali yu mooy wali yu wa àll siiwa nga xam ne caaxat siiw na wilaayatuhoo wilaayaam nga kasam si mel na jant bi rek sëxwan ci ak ci ak wuri maanaam ñàkk xiin waddax wan ak ci yoor yoor duuna ma fanadin ci dul benn fen nee na moom daal wilaayaam gi moom dafa siiw ba ni jant bi siiwee nga xam ne du tolloo ci ak wuri maanaam amul xiin wu koy làq tàmbale yoor a jëm ci kaw na muy leere rek noonu la wilaayaam sëñ bi leere di ñëpp xamee jant bi noonu la wilaayaam siiwee ñëpp xam ko moom moom aljawaadu mooy tabba ëllësi ba nga xam ne amat matale na mawaaxibuhoo mayam ya kal xëy si mel ni taw ba lam ya ëlu gàttañ luwut riyan ci màndal kullama baladin bépp dëkk ne mooy tab bi nga xamee ne mayam yu bari yi daa mel ni taw amul fenn foo xam ne àggu fa taw fa ba màndal ko huwa moom ashujaa mooy jàmbaar ja allasi ja nga xam ne shaahat siiw na shajaahatu hoo njàmbaareem nga mata dana saa yu jegee lay su raabin gaynde gott min hu ci moom yartaay du mu lox ene mooy ki jàmbaaree jàmbaare ba nga xam ne gaynde sax ñëmewu ko ko jegee day lox abul kiraami mooy baayub way tedd ña abul badrayni mooy baayub yaari weer ya paaldirihi mooy sëñ fadloo ma wa Moustapha ak Moustapha moom muy suñ mur Moustapha faxaaray kulli mujtahidin jay ñaari ndami képp kuy aju farlu leen yàllaa ko may mu njaboote ñu tedd tedd ñu baax a baax rawante na ñaar ñu nuroo léegi weer muy sëriñ Mouhamad al Moustapha ak sëriñ Fadlu axul majaadati mooy borom tedd nga la kaafi kulli armalatin mooy aji doy jëpp aji ñàkk jëkkër man na it mooy aji fegal jëpp aji ñàkk jëkkër man mooy ka nga xam ne misluhoo moroomam ma lam yazhar mësta feeñ xattu mukk walam yarit te dorot mukk en yàllaa ko def muy ku tedd koo xam ne ku loru mel ni ku amoon jëkkër te ñàkk ko moo lay taxaw ba mel ni ñàkku woon jëkkër su ko defee it ku mel ne moom moom musta feeñ mukk te du feeñ man mooy ka nga xam ne saada sang na saadatanaa sunuy sang man mooy ka nga xam ne xaada wommat na xaadatanaa sunu way wommat man mooy ka nga xam ne man ataa ku dikkal baabaxoo buntam ba mustafidan mbir muy aji sàkk koo jariñu yu fit mu daal di koy jariñ wala yu fat kon def na ko jariñ yeena mooy sangub sang yi mooy njiitu njiit yi mooy koo xam ne ku ñëw ci buntam te bëgg jariñ rekk tax mu daal lay jariñ af di danaa ko jotoo min aalimin ci aji xam aalin kuy aji kawe wa min wasarin ak ci aw wéerukaay nadd bin buy aji baax wa min muxjilin ak ci aji rusloo li loof li ñelwaame inee jut ndem dafa tabe mbaa ndem dafa taw wa min sharifin ak ci aji tedd warifin kuy aji ñaw saalikin kuy aji soobu nachitin kuy aji sawar taawil masiri kuy aji kuy aji ñande biir al masir bi fi di butiit ka say fi sayxali mel na jëesi tëgg ba al faridi ji aji wéet jay jenn taawil masiri naa joxe daaneel woon na ko ni mu ko daaneelee fii ko tibb foofu andi te ne man day maa ngi koy jot lu ko nar a jot na ñëw ci man lu ko nar a dal na ñëw ci man waaye ngoog joo xam ne daal maa ngi koy jot muy ko xam di wóorukaayu ñëpp di ku baax koo xam ne dafa tabe tabe ba di rusloo waame moo gën a mën a sotti waame ni muy sottee may maa ngi dellu di ko jotoo ak saa bopp muy ku tedd ku ñaw ku xoromu ku sell ku sawar koo xam ne foo ko fekk biiram dara du ca nekk mel na rek jëw si tëgg boobu na ko naabixa misaale woon rek dewal ne moom itam fu mu toll biiram dara du ci nekk ndax jëm ci boroomam ah jib kawtiifug yéem bi mum basitin ci aji tàlli murtabitin kuy aji yeewu bil xaq ci dëgg nuurin tey leer li moo taqidi ñeel aji am pas-pas naarin te mel ni sawara li mun taqidi ñeel aji gëstu sikk nee na ku tàllee ngoog ba noppi yeew boppam ci dëgg dara du ko yeewi ku am pas-pas nag ci yàlla rafet njort ci moom boo dikkee daal di am leer waaye nag ku bëgg a gëstu sikk rek nag sawara day mel ne moo lay dàq ak karim kaawteefu tedd nga bi moo atamadin ci ab sukkandikukaay fil xiirsi ci tedd nga mun faridin kuy aji weet fillaahi ci yàlla mujj taxidin kuy aji farlu mun jaridin te aji futtiku lillaahi jëm ci yàlla maafil akaabiri déet muy nekk ci way màgg ña du fadlin borom ngëneel yu saabiqu koo ko doon rawanteeg moom fa arifu xam ko rek tan jikkoon nga mucc minal aafaati ci ay gàkk wal wabadi ak ñaawuk mbir al wabad mooy suul xaal nee na ciy maa ngi yéem ku tedd ni moom di ko amul morom ci teraanga di ko ñuy sukkandikoo di wéeru ci moom moom nag léppam di yàlla boolewul yàlla ak dara boo seetoon gaa yu màgg yi ka nga defe ne mooy ci ëpp li ngëneel du mën a jegenteeg moom ci genn wet kon soo bëggee mucc fexeel ba xam ko boo ko xamee daal di mucc ci lépp lu bon mucc ci lépp luy ak manqué in ankara ndeem weddina al arabiya u mooy réer ña fadalahoo ngëneelam xasadan ngir kañaan kon falxay nu bët ba tun kiru dina weddi taw achamsi leeru jant ba min ramadin ngir wànneen mu ne ñu xamut buñ umpalee mbaaxu sëriñ bi am luñ cay wax ngir añaan loola bu mu la bett ndax nit mën naa xool jant bi ne jant bi daa leerut fekk na leer na waaye moom ay bëtam moo sikk mel ne mu wànneen mbaa mu am seneen sikk banaa tabax na buyootal ma ali néegi kawe ya wax ya te fekk na ñoom daa risatu ñu doon ajràpp aqwat wéet nañu wataala te yàggoon alayha ci ñoom saaliful abadi aji wéy jamono ja ba tey loolu daaneelu naajooxale woon néegi yàlla yi nga xam ne dañoo demoon barab kenn nekkatu ca moo dikk tabaxaat leen ba ñuy feesal mbooloo xataa tajaddada ba yeesaat bunyaanu tariixati tabaxub yoon wa fii hisin ci tedd nga wa am nin ak wóolu wa yum nin ak barke duna ma naka diñ ci dul tiis nee na mooy yeesal yoonu tariixa lépp ci teraanga ak jàmm ak mucc ak barke ci lul kenn yenu tis woo attanut taraaxu danga ko gis yàppoonu muy dëbbu maanaam taxana moom ayin bi araf alax la waaye daañu ko dàmm itam ayin bi fii xisbillahi ni ci kuréelub ka ñu rëbb maxan mboole seen taanal mu bàyyi tëre kem dëbbug aji saafara jurga id yashfi badana saafara minal xadadi ca jàngoro ja danga koy gis kuréelub saytaani mu leen di dëbbu leen di jam jam yu méttee mett ni nga xam ne kuy faj ak jur muy docteur vétérinaire bi faj jur gi mën naa mu xotti yaram wa noonu muy xottee na bëgg saafara jàngoro ja mu leen rooleeg ni sëñ bi jame noonu yàlla yi ak kuréel ba ànd ak ñoom ramaahumoo sànni na leen bi si xaami xis yi ci fetti gecci mum fada tan mbir muñu luñu saral man ngaa jàng isma fool yi mum fada tan wala sabila te déet wenn yoon ilaa xaqalin jëm ci diya wala xawadin du caageenu fayantoo pare loolu naa wax da ko daanle woon wala sabila ila xaqali wala xawadi ene sëñ bi sànni na noonu yàlla yi fetti toroxte gàcce fettee jàmm bu fël ba jàll te nag yaakaaruñ ki leen jox diye ci bañ leen boomee yaakaaruñu fayu ci ki leen def loolu fa baa ata dellu man képp koo xam ne kaadahoo fexeeloon na ko bi suwe ci lu bon dellu na mun hasiman di aji daw mbir mu muy aji daw mu xayyabal xasdi tey lu ñu tas ak jublu mooy tey lu ñu sooyal ak jublu lam yaslam muccut walam yasit raboot lam yaslam walam yasit ba tey naa bi xada koo daanele woon mu ne képp ko doon fexee lu ñaaw moom sëriñ bi dangaa mujj delloo loxoy kese la nga bëggoon dara suttiwu ca nga xam ne kon amoo la gën wut ba noppi nag yow nga daanu muccoo ba tey xadd xaama taxaw na fillaahi ci yàlla billaahi ci doole yàlla alazim yi aji màgg kamastaqaama naka mu jube xocc lay sa bi di jawrin dét mi boroomu jeng wala awadin du caageenu dëng dafa taxawal yàlla ci loo xam ne yàllaa ko ca may doole mu jub xocc ni yàlla bëggee mësta jeng ci genn wet baaxa jaay na alxawa bànneex ba bil hudaa jënde ko jub lillahi ngir yàlla fii zixarin ci ak ndawe waxaasa te mu làq fii kibarin ci ak mage ribaxan tono bilaa nafadin ci dul jeex ne ba mu dee ndaw la jaay lépp luy bànneex ak lépp lu amul njariñ weccee ko bëgg yàlla ak wut yàlla ba mu doonee mag nag yàlla gatandu ko fay ko pay goo xam ne du jeex mukk mukk cheikhun ab sëriñ la yurab bii bopp dana tarbiya bi maa ci la nga xam ne xadd xaasa laq na ko min xikamin ci ay xikam dana tarbiya rek kullal muridina mboolem taalibe ya min daanin ci aji jege wa mubtaidin ak aji sori kama yuraqi niki muy tarqiya bima ca la nga xam ne xadd xaasa laq na ko min minanin ci ay xéewal maa lépp loo xam ne kaana amoon na fil ardi ci suuf min badalin ci badal aw watadin wala watad ne sëriñ la boo xam ne ñëpp lay tarbiya xekkam yi ko yàlla may ak leer bi ko yàlla may ci lay tarbiya mboolem taalibe yi muy ku ko jege muy ku ko sori ba tey it koo xam daa toll ci ñu di ko tarxiya moo xam daa am darajay badal bokk ci ab daal yi wala mu am darajay watad bokk ci aw taat yi ñoo ñëpp sëriñ bi moo leen di doon leen yéege bañ jëm ca kaw li kaw allahu yàlla xaddamahoo jiital na ko fii naa ci nun wa karramahoo te mu teral ko bitaa ji xisin ci ndëppal tedd nga xalal axyaari ci kaw tànneef ya mun xaqidin bu di aji façon yàlla ko jiital tegal ko ndëppul teraanga ne ko yaa jiitu mboolem gaa yu baax yi fasal ko drapeau ba nag mu jiitu yore ko cheikhul machaayix yi mooy sëriñub sëriñ sa laa tox saa deful mën a lim fadailuhu ay ngëneelam wala na daaw du caageenu tabam nga wala xuliyaahu du caageenu kawem nga fii abadin ci mukk mooy sëriñub ñëpp li ko yàlla may ci ngëneel li ko yàlla may ci tab li ko yàlla may ci kawe kenn mënu koo takk ka lim baxarun géej la azimun na daa guy aji rëy ak tab min kulli man xabatin ci gépp nga neel mata turit saa yoo namee wirada fadlin rot nga neel min hu ci moom xom jógal tarit kon nga daal di rot géejug tab la goo xam ne lu baax lu ne géej la ca soo bëggee ci xeet nga neel yi benn rek waaxul dem rooti ci moom daal di root ba doyal duy ba feesal man jaaxoo koo xam dikkal na ko aamilan mbir muy aji yaakaar antaaxu mu jox ko mun yetaxoo mébétam wa in yaxut ndéem dafa dellu si xaada mu dellu joxati ko aw in yesta sidd wala mu sàkku ndollin yu sat kon def na ko dolli wala nee na ku ñëw am ci moom yaakaar daan la jox la nga yaakaaroon ba jox lu ko ëpp sax te boo dil siwaatee du tee mu joxaat la bu la joxee nga bëgg ndollin mu daal lay dolli fa saasa fala tuaddu deful mën a lim wala tuxsa te deful mën a takk xatiyatuhoo mayam ga wala yaxoolu te du diggale xataawul yow mi mayeg tey duuna xadin ci lu ëllëg pare loolu naaju xa daan loon na ko loolu wala yaxoolu xataawul yow mi duuna xadi nee na sëñ bi ay mayam mëni su koo takk ka wàññi te itam maye tey du ko tee maye boo liggéey xarat sedde na bi ci moom xaayu nu mën bëtu ko nga xam ne ya bi dana fàttu ci moom tuxultu te wax naa la xooñeel ko ne ko laqad zafirta tuufu nga bi hablillahi ci buumu yàlla ga faax tamit na nga sukkandiku bu dëgër nee na képp koo xam ñëw nga fàttu ci moom sa xol sedd na sa aajo faju na la ma lay wax daal mooy jàpp nga ci buumu yàlla gu dëgër a dëgër mooy ci bu baax te bul bàyyi inni naka man aqul danaa wax li ma ñeel ko nga xam ne adha yoor yooru na yu saabiquhu darawanteeg moom fen ilmi ci xam-xam wa diin ak diine aw fil xaddi wala ci surga wal xudadi ak ay jumtukaay wala aw fil xaddi wala ci barik lim wal xudadi ak i jumtukaay nee naa ko at xabta sonal nga nafsaka sa bopp fii maa ci loo xam ne lasta déet yow tudrikoo nga di ko jot wa baaxati sànku na amuru ko sëg dund fii xamin ci njàqare wa fii nakadin ak ci aw tiis nee na ku bëgg a rawanteeg sëñ bi ci li ko yàlla may ci xam-xam ak diine ak lépp lu nit ku baax di bëgg ku ci bëgg rawanteeg moom ne ko yow daal sàngal nga sa bopp ci loo xam ne lu yàgg-yàgg doo ko am nan ngaa sànq sa dund rek ci yóotu loo xam lu yàgg-yàgg du sotti law tirta doonte naawoon nga bay na sama diggante asamaan wal ardi ak suuf mujj taxidan mbir mu ngay aji farlu fii nay limaa ci am li nga xam ne xussa jagleelef na ko tuula dëxri dirub jamono lam tajit koy doo ko am li mu am yàllaa ko ko jagleel mais nag boo doon naaw diggante asamaan ak suuf lu nekk nga daj ko itam du tax nga am ko laysal bixaalu déet baxla ya tujaari yi ñu rawante fi rihaani ci kursu wa sawaabiqal xuyooli way raw yi fas ya wala dul mawji déet borom duus wa kat samadi muy mel ni ndox mu néew ma nee nag baxla yi berkelle yi mun ñu rawanteeg naadu góor yi ndax bokkuñu ay rang ba tey géej miy duusu woote naag ab deq ak as ndox su néew a néew day wax sëñ bi ni mu sorenteeg ñu baax ñu ci des xoow moom aljamilu ma aj rafet ja allësi ja nga xam ne yuusur yi dana xeebloo bi badri du jan ci weeru ay lëndam mos nañ ci ab taar wa yuusur yi tamit xeebloo bil asadi ci gaynde la dal xay jaayu fa xare ba leen mooy ki nga xamee ne bu dee ci ni ko yàlla rafetale moo gën a rafet weer bu dee ci ni ko yàlla defe muy jàmbaar moo gën a jàmbaari gaynde kul waxal fii ci moom maach itu lu la soob min duuni nubuwati ci ludul ak yonente laa taxfil bul faale bi xam yaana ci aj gumba lam yóbbu sirif kook gisut bi badri yedin ci weeru guddik fukk ak ñeent lépp lu ñu taggee ku baax daal li may ab yonante la mën nga koo wax ci moom te juumoo bul faal nag gumba goo xam ne ñu tollee ci guddi fukk ak ñeent ni weer wi leere ma ngay wax naa weer wi génnul tey xam ne kon gumba gaa tax rek waaye ñu gumbawul gis nañu weer wa xoo moom almurabbi mooy aji karbiyaa ja almuraq yi kay aji tarqiyaa as sayidu te mooy sang ba as sanadu kadi ab wéerukaay al xaysu te mooy taw ba al muxiisu bay aji xeetle xabibul xaaliqi mooy soppeeb yàlla ki aji bind al ahadi kay kenn ahyaa dekkal na xulooba jamihi saalikiina xoli mboolem way soobu ña waxad hadaa te gindina al jamiha mboole seen ilaamaa jëm ci la nga xam ne ixtiira tànneef na ko min rasulin ci jub nee na mooy kii tarbiya ka tarxiya di xettalu yàlla def muy xettalee muy soppib yàlla yàlla may ko xol yi nga xam ne ñoo jëmoon ci yàlla tamit dañoo dee mu daal leen di dekkal dundal seeni xol gindi ñëpp bañ am njub ga taxoon ñu jóg rabba yar na al muridina taalibe waxatta te mu sippi al asqaala diis diis ya kama fadaa naka mu jotoo al usaara ña ñu jàpp li waj xil maaliki ngir jëmmi yàlla mi aji moom al faradi ki aji weet fa tarbiya taalibe yi yanu dis yi nga xam moo leen teexoon àgg mu teggil leen ko ñamel ne seytaan leen jàppoon yeew mënuñoo dem mu daal leen di jotoo yewi leen ñu daal di mën a wuy ji seen borom jasaahu yàlla na ko fay mawlaahu boromam xanaa walis nu kulla azminatin ci yépp jamono xeeral jësaa ngën ji pay bi xadri daati multahadin ci kem jëmmi wérukaay ba muy yàlla yàlla ni jëmm màgge réye ni yàlla na ni réyale payu sëñ bi ndax moom moo nu ko mënoo fayal rek waaye nun mënu koo fay yaa xayra mutamanin yow ngën ji kuñu wóolu fillaahi ci yàlla mutamarin ku di kuñ diisu wala mutamarin ku di kuñ topp ndigal koo xam ne kii niswaanu haada dahri jigéeni ji la jamono lam talid musuñoo jur sharwaahu moroomam yaa ajmalan naas yow gën jaa rafet nit ñi ijmaalan ci bëbëstal wa ahsanahum ci gën rafet ci ñoom xawlan ci wax wa fi'alan ak ci jëf bila rey bin ci dul benn sikk wala fanet du jaageenu fen ante yow ëll si yaay ki nga xam ne saabara muñante naag li xidar rahmaani ñeel nooni aj yërëme ji id siwaaka ba nga xam ne ku dul yow lay sa bi di sabarin déet mi boroomuk muñ wala jëladin te du boroomuk dëgër waxumta te nga taxaw fiihim ci seen biir bi idnillaahi ci ndigalul yàlla mun faridan mbir mu ngay aju weet wa sabru te muñ nga finnaari ci sawara xukkumun àtte la xayru mutaridin boobu du aji xiyaasoo da ko woo ne ko yow mi nga xam ne képp ku ñuy wóolu ci wàllu yàlla yaa ci jiitu yaay koo xam ne itam jigéen mësta sukk jur ku mel ne moom yow la yàlla may nga gën a rafet ci nit ñi gën cee rafet wax gën cee rafet jëf ni nga gën a rafeti bind ne ko yow day yow képp yaa déral yàlla jàmmaaloog noonu yàlla yi ba nga xamee ne ci des ñëpp dañu woon gannaaw jéemuñu muñ dara mbaa dara ñu daal daw rek yow rek nga taxaw déral yàlla taxaw noonu yi ci loo xam yàlla la ko digal noonu yow dong sàkkuwoo wala sàkkuwoo ndimbal te mu ne nag muñ ci sawara moom boo wàññee benn doo ca teg di wéy du àtte bu xiyaasu boo xam ne ngay jàng ci naxu nangam xiyaasu nga topp koy wéy waaw nee na muñ ci sawara moom yombut mooy li sëñ bi fi sëñ bi dox ak fa mu jaar boo wàññee bennam ñaareel tëla xarit te génnoon